laalee da ngay nit ku dox ba mu yàgg mu téye lu am courant bu ko courant maas yow boo ko laalee rek courant da lay maas loolu ku ne xam na ko rawatina jamonoy taw nga xam ne miir bi courant bi sax miir bi sax tegoo soxla ci courant waaye miir bi nga xam ne poto bi dafay nekk rek bu tawee ñaare boo laalee miir bi da ngay soxla soxla bi kër kër yi noonu yow ko la laal da lay da koy maasaale te nit bu ko courant doon rey bu ko téyee bu bu bu explosé ku ko laal rek day ànd ak moom rek kon noonu lañ ko mën a misaale léegi nag su boobaa nag bu demee juróom-ñeenti weer nag. teeru bi door a dugg si ñëw su ko ñëwee bu dugg nag dootu demaat su ko defee mu fekk waajur wi rek doom bi bu ji jëf yi muy fekk lay mel moo tax da jigéen ju baax am doom ju bon da jigéen ju bon am doom ju baax maanaam jigéen ji mën naa baax waaye waxtu wi ñoo ngi dugg si daa tombé muy def ak sofaan bu doom ji juddoo day bon ndaw ndaw si mën naa bon lool waaye waxtu wi ndox waxtu muy judd si rek daa fekk muy def bu doom bi juddee nekk bu baax nag boobu boobu nag su fa nekkee di fa nekk di fa nekk ba war a dox waaj euh, ndaw si war a am doom ndax li tax mu compliqué de day compliqué ci wow la su ko defee buy ñëw lu mat. juróom-ñaar fukki malayka ñoo koy dàq ñoo koy dàq ndax doom day taxaw day taxaw ci biir ndey banque tànk yi daal di daal di daal di banque loxo yi mais nit ku ku ku tëgg ci misaal ci jamonoy seet dañuy woo malaan ni ngay banquoo doom bu nekk ci biir ndey noonu lay mel day egg tànk yi ak loxo yi daal di banque loxo yi su ko defee xolam ndey ndey ji da koy tiim yenn taay xale bi ñu bëri bu ne bëri bu yëngatoo bu mbëkkee xol bi rek mu meex moo tax jigéen bu ëmb di gaaw a naqari dara rawat na bu ñuy góor sax da ndax mooy gën a mooy nekk ci su waxtu day ba ñaar tax su ko muy di wëlbatiku di wëlbatiku di wëlbatiku bala farawoon kaw fare suuf mu door a ba ni muy juddoo nga xam ni dañuy wax ni euh, waxtu woowu waxtu tiis ndax foofu la loolu rabbi naas maliki naas ilaahi naas mu ni bu doom nekk ci biiru ndeyam rabbu laa koy tudd ndax rabbu dina firi aji yàq rabbu dina firi borom rabbu dina rabbu dina firi ku tey su mborom nee foofu ku tey dong moo mën a lijjanti moo tax rabbu naas lay tudd foofu su boobaa nag bu doom bi juddoo léegi ñuy dem ñuy dem ba mu sopp suñu borom dee wala ñu moo tax. da gis bu doom juddoo da nga koy liqaamal ci noppam ndajoor maanaam dañuy nodd ci noppam ndajoor tifli liqaam ci noppam càmm tifli tudd ko waaw lu tax ñu nodd liqaam te julliwul lu yàlla ay xel la ñuy teg ñu ni bu demee ba faat ñuy nañ ko jullee julli googu du am nodd doom liqaam ndax nodd noonu bu jëkkoon liqaamam bu jëkkoon kon julli rek moo ci des wala nga jullee nii kenn du ko liqaamal kenn du ko nodd ndax da ngaa nodd te te gis nga suñu borom li ma xariñe gis nga buy faatu ñu koy jullee julli ga doon lexaam doon nodd day ñëw rek jullee ndax dañ ni jullee woon lexaamal noonu ca noppam dajoor na julliwul woon su boobaa nag ruu gi saa yu génn nan lay génne xam nga dafa am genn garab bu ca juróom-ñaari asamaan ak déem sa déem garab bi sa déem la garab boobu moo tax dañuy bay tax garab gu tooy nga ñëw di fàq fàq xob yi te lay woo dara lu wóori ni la ndax dañuy wax ni garab googu nit ku nekk mbindeef mu nekk saw xaw nga fa lépp lu am ruu saw xaw nga fa rawatina nit ci la ñuy su ko defee mën nga moom ci am na barab bu muy toog boo xam ni xob bu wadd rek seet bi mu toog day day wadd ci xob bi day wadd ci kanamam su ma dee ci kanam mu xool ko xam ni kii diw la léegi waxtu woowu ci lay xam ne ñeent fukki fan ñoo moo ko defee boobaa asamaan ñëpp di ko wooyee néew bi dañ koy wooyee ñu koy wooyee aw turam ci àdduna moom ay projet fekk na moom faat na ca kaw waaye faatagul ci suuf su ko dee mooy moof nag ci biir ñeent fukki fan yooyu lan mooy ab liggéeyam mooy dafay gëstu fan lay faatoo moom waaj ak lan moo koy faat ak waxtu wi ak na ñuy demee léegi loolu rek lay gëstu léegi ba xam ko xam nga loolu jaaroon na yonent yàlla Suleymaan dafa toog te am na Suleymaan kott li nekkoon ci Israël léegi mu toog ba mu yàgg mu benn waay ñëw ci moom toog moom mën ko ñëw ci ñëw romb ko xool ko nuyu ko jàll ñu dem ba mu yàgg mën na ko ñëw ci rombaat ko waaye jaaxle. waaye ñu toogal jékki-jékki ni ko waaw Souleymane yow yàlla da jox ngelaw li tàkkatal la mu ne ko waaw mu ndax mën laa wax ngelaw li mu tàkk mu yóbbu ma sii mu ne ko ah kay boo yóbbu ko ma yóbbu sii mu Souleymane jox ni ngelaw li mu a ko ëpp si ni ko waaw Souleymane ana waaj toogoon si mu ne ko moom daa toog mu yaar mu ni naa wax ngelaw li mu yóbbu ko siin ba wax naa ngelaw li mu yóbbu ko siin waaye man ak ni ko jaaxle bu rëy laa nekkoon ndax kii bi yi ma njëkkee romb li tee mu faatu ba rek te bi ma xoolee fan la war a faatoo siin la war a faatoo te wóor na mu ni waa ji moom mënut a jógee dem yóbbu boppam siin te man ma def dara lu woote ndigalu yàlla mu ni ka ne waa jaa ngi ni siin laa jëm pour rey gis nga kon kooku loolu mooy digg digg bi su boobaa nag mu am ñaar ñaari xeetu faatu ñaari xeetu faatu benn bi mooy faatu bi nga xam ne dafay faatu fekk texeel ak faatu bi nga xam ne dafay fekk texewu bu ci ne am na mandarga nit malaka moo buy ñëw am na dafa am ñeent fukki malayika yoo xam seen xarkaan dafa weex bu ñoom lay àndal ñoom lay àndal ñuul kooku. bu nit ki dee texee ni moom lay àndal kooku mandarga la waaye su boobaa bu fekkee nit day ñëw nga nit ki naa texee bu bu waa bu mën ñëwee xagar yu leer nekk imaan imaan gi nekkoon ci moom dañuy dañuy jaxasoo su ko defee mën bu ñëwee bëgg rey waa ji léegi fu mu war a jaar rek boo ko dee siif mu dem ba jaaxle li suñu borom àpp ah, demaat suñu borom ni ko diw de ruub diw xëcc naa ko waaye fu ma a jaar bunt bu ma jaar mbaj suñu borom ni ko waaw tàmm bi mu tàmm jaamu yàlla ak leer gi nekk leer gi nekk gi muy dund moo tax doo a faat dama ca sëddéen nga sëddéen nga muy sidra nga tag dagg fa aw xob aw xob soo ko daggee dinañ ci bind bismillahi rahmaani rahim su ko defee boo ñëwee na nga soo ko wanee roog rek donc bu gisee loola ca lay yokkantu ko di génn di génn di génn ba ëpp rek mu mu ko ñëw mu ànd moom dem souvent nag dañuy yor xeetu mbalaan moo xam ni dafay nooy nekk ci lay lax ci boobu suñu raxasee rek ci lay maf nañ dem suñu demee nag yóbbu ko ci indi yi nag foofu nag lay nekk yenn taay yu ñu ci ay picc picc yoo xam ne yu wert la ñu xënd ñuy for ci bëri àjjana yi ba kor nga waaye am na ci ñoo xam nag mooy ko moom du leen rey yàlla ci ko moo leen doy boppam nit jur gii mel jur jur amul genn jur buy dee nit ak ginne rek la ma lay ko rey waaye lu loolu lépp la magoo day faatu yàlla moo lay reyal am na ci jaam yi nag ñoo xam ne ci nit ñi ñoo xam ne ay jaam yàlla lu fi ñu seen borom moo tax yàlla du leen wóolu bàyyi malayka saa yoo xamante ni war na faatu yàlla ci ko mooy rocc seen góob kooku nag moom suñ tubaab di ci si nit yi naa yàlla mën a ñaan nga def xam nga faatu noflaay bi te mooy faatu boobu nga ne yàlla mooy xëcc ruux bi subaa day neex day neex ci jaam bi ba dàqante lépp kooku nag ci du ñëpp àgg foofu waaye am na ci jaam yoo xam ne malayka leen rey yàlla mooy leen rey nag su fekkee ne noonu am na ba waa ji faatu ruux gi dem bu des yaram yaram boobu da ngay dégg ñuy wax ni lépp looy def mu ngi koy xam déedéet du yaram bi loolu ruuga la ndax ruuga ruuga faatu moom naa la waxoon sàkk ni la ci ëllëg ni la jógee waaye day dem ci abadiya yàlla moom sàkkee roo rek jeex ndax wu boobu ëllëg moom lay dee def ci bàmmeel mu dekkiwaat ñu laaj ko mu nekk fa ba ba nekk ëllëg yama xiyaam mu yoraat genn jëm ñuy dem ba mu tàbbee àjjana te ila boo xëy na tàbb àjjana ilaa abadi abad la amut dootul yàqoo ci kon gis nga yàlla ñun dañoo jógee ci ëllëg ñëw ci abad jeex na léegi nag su boobaa lu boobu nag bu demee ca taw léegi waxtu bi nga xamante ni kenn yi war a sang waaj ruug bi moo ruug bi mooy wax waaye bu yaram bi mooy wax yaram bi moom moo kaw dàll ñoo yem léegi soo ko yóbbu mu yóbbu la boo gisee tax ñuy wax ni soo gisee nit di ragal ab nii du dara ndax koo xam boo ko dóoree du fay soo ko doon def dara lu tax nga ragal ko mooy ruug bi dafa gën a jege yàlla yi jege ñu jege yàlla. looloo tax nga ragal nga ragal nga ragal am néew ndax yàlla dara ñu nekk dañ ko umpale rek waaye yàlla dara ñu ndax malaaka yi ci a jigéen ñoo gën a ragal léegi su bi nag ruugi wax nee ndox mu jëkk ñu ci jëkk a sotti dafay wax ay waay defal ndànk ruug yi mooy wax mais yaram moom du wax waaye defal ndànk xanaa xamoo ni yaram woowu ruug ci jóge moo tax loo ko laal yaa ngi koy gaañ su ko defee buñ ko sangee ba noppi buñ koy sàng di ko sàng ba tolloog xarkanam bi nga xam ne ci lay def euh, càngaay la muy muur kanam bi ruugi day waxaat daal ni awaay te nga bàyyi te nga bàyyi yaram bi tuuti ab diir man ma xool sama njaboot yi ma fi nar a bàyyi ma bàyyi xool fi sama soxna yi xool sama doom yi ak dëkkandoo yi buñ ko muuree ba noppi ni ko teg yëkkati ko di ko teg ko ci jàpp mu ruugi waxaat ne ah yaa ngi ma teg ci fas woo yaa ngi ko teg ci fas woo xam ni tey la ci te su ko wàccee du ko waral mu moo tax li am solo mooy nan sant yàlla bu baax bu amul benn werante demal ca minal miskiya seex fi la donc kon nag bu tuuti la woon jébbul sëñ Tuubaa nekk ne bokkuma ak sama ndey bokkuma ak sama baay bokkuma jox naa xam ak nag àllaaxira sëñ Tuubaa nekk ak moom Cheikh si la ne ci kër gi ne ci kër gi ba mu yàgg ay jamono mu feebar daal di faatu ñu ñëw tàgg ko sëñ bi sëñ bi di toppatoo leen ko biñ ko topp biñ koy toppatoo mu woo sëñ ma Cheikh la muy jóg mu ñëw sëñ bi fekk biñ ko tàgg Cheikh si la sëñ bi daal di ni bërit ba mu ñu wax ñu topp mu dugg nag ci biir di laaj nag boromam. Cheikh Sylla nii nga xam ne ndaw la bàyyi woon léppam jox ko boppam bàyyi ñëpp ngir moom nan la fekk boromam mais buñ duggee ci biir suñu borom ne ko haadaa min kii mu nu bokk ci waa àjjana sëriñ bi gën ni woo leen moom la ñu jóg ñu woo ko sëriñ bi bind nii ayyuhal malakaani saa'ilaani haadaa min ashaabil janna ni ko sàmm yooyu mun ko bàkk mun ko bu ngeen ko sàngee ba sàng ko na ngeen nga doxalee ci diggante càngaay mbind mii robaale ko bu demee ci bàmmeel ma yi duñ ko laaj demal ci benn ministre yi ak sëñ sëñ Malamine Diop moo ko fi kon dama lay xamal ne la benn bi ci toog Cheikh Malamine ne na may toog muy taw may xalaat bàmmeel ak malaaka ya ba mu jël sama xalima layta cheikh abi nga yàlla ma xam su ma demee ci bàmmeel lan mooy tontu tontu ñaari am ndaw lu fëkk mais ci biir taw bi la xuus nee ñu ubbil ko mu ne sëriñ bi nee na na am ku ñëw wuy ko nee na kam a bunt ba moo daw ànd ak moom ba mu demee ñëwaat andi sëñ moo lañ ak xeste goo sëriñ bi mu ngi ko tëggee leen law si ni am na lu ñu jóg naka mokkal waa daara ji mokkal bi ñu mooy doon bu ñaari malaaka yi ci ma koy jeexale ma waaye ko ndous biñ koy jàng Cheikh Abdou Salaam Jenn mu soxal Moussa Mbacké ak Cheikh Issa Jenn dañ a moo ma yoroo moom moom Cheikh mu Diop moo ko jàngal téere Sëriñ Tuubaa yépp te sëñ mu lamin jëf sëñ Tuubaa ko jàngal téere yépp bi ba boo demee ci muqaddama bi elam xabaaka laa wasaa juróom la bayit yooyu koo mokkal mooy tontu ñaari malaaka yi sëriñ bi li ndax biñ ko seexal ñu jóg di jàngal daa am lu mu ñu waxoon ne sëñ mu laa bi nee dafa am bis muy jàngale moo weer Xudduus ndekete suñ koy jàngale soo wul sëñ bi waaye mu gisul sëñ bi bi muy jàngale bunt nekk ne ci ginnaaw mu tàmbali kàllaama xabaar da koy jàngale da koy jàngale bu bunt bi jeex sëñ bi ni ko moo Lamin nee na mu gees dem sëñ bi ni ko ñaari malaaka yu rak yooyu ngeen dégg bi foofu nga toll mooy mooy seen toll moo tax ku kuy jàng mooy Xudduus na nga fexe ba jàng ba mokkal bunt boobu nga xam ne mooy mu xaddama nga xam ne moom mooy juróom-ñeenti woy sëriñ bi ne képp ko mokk boo demee ci bàmmeel bu na laaj di nga tontu kon lu muy tekki mooy am nañu aw yoon wu leer léegi nag ñu ñaan nag suñu borom ndax nee naa la bi may tàmbali bis bii bisu jaamu yàlla alxuraan yi moo fi nekk xasaay sëñ Tuubaa saa tas bi mu ngi ñëw ci kanam booba léegi ñu nekk ci lu baax kon waxtu wii waxtu ñaan la bisum ñaan la kooku amul benn werante yenn saa yi nag tey rek am na ku ma laaj benn question ni ma comme tey 31 la te feetu ñeneen la waaye ndax boo ci jëlee dara togg wala nangam nangam ma ne ko waaw léegi euh, bu fekkee ne 31 jëmmi feet baa tax moom dama koy aaye waaye jëmmi 31 yi maanaam bis bi moom koy nasaraan moom ko ñëpp ko bokk ndax xam ngeen ni tey tey la dimanche dimanche tey bis suñu borom la ñëpp ko bokk man ko waaye léegi tey bu tomboon bisu tam xarit nag nooy def comme dañ cee a togg dara lu neex toog tam xarit nooy def da ngay bàyyi tam xarit ngir trente man tam ngoog maanaam yàlla xool mooy tax ngay def loolu lu jar a xel la parce que fu bul fàtte ni maanaam loolu lu jar a bàyyi xel la tax ngay def loolu la yàlla xool kon bis bi soo ci lekkee wax naan ci kenn ayiwu ko waaye def ngir fedd la nu may ndax bu tomboo nag. Euh, maanaam màggal day bu toog la màggal ndax da nga ne ko def kon kon bis bi kenn moomu ko maanaam dimanche ak àddina taal ak àll ba àll la waaye jullit bi moom li muy naka def ngir yàlla rek kon bis bisu ñaan la ñu ngi ñaanal suñu borom sëñ góor ñu ngi sant bu baax yàlla gën laa karsunal gën laa wéral ak sa mbokk yépp ndax lii lu rafet rafet la damay faral di wax ni waa def ñu ko mën a jaar xam nga si moom mun taxaa dafa waxoon ni